rajo télévision Africa 7 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu amati mbégte bi fi teew comme ni ñu koy defee euh, talaata bu yàlla sàkk bu waxtu wi jotee vingt une heures jàpp vingt deux heures euh, ñu ànd ak yéen seen émission espace euh, public ñuy dalal tey beneen kàngam nar waxtaan ak moom si tolluwaayu réew mi. kooku di Ibrahima Thiam moom mooy secretaire général bu centre de recherche Saint Saint-Antoine. INSERM euh, Sorbonne euh, moom nag moom la ñuy dalal nekk tamit euh, ku jiite mouvement politique bi nga xam ne moo di un autre avenir ñu nar a seex moom waxtaan comme ni ñu ko waxee si tolluwaayu réew mi sëñ Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar am mbégte la dalal si espace public. maa ngi lay fay di nuyu sa mbokk téléspectateurs yi balaa may tàmbali waxtaan wi nag dama bëggoon jàllale sama njaan sama njaal si Baye Abdoulaye caw laay bi fi wàññeekoo ñu bëgg présenter condoléance famille bi yëpp di présenté également suñu condoléance di ñaanal fameem yal na yàlla sarax saraxam yàgg si loxo seen loxo at sunu maam Abdourahim Seck nga xam ne sax moom mooy maami sama benn xarit bu ñuy wax Ibrahima Ndiaye nekk sa France mm. di ko di ko jaale euh, vraiment xalif généraux yu fi bàyyee yu fi bàyyeeku. Mhm. jërëjëf loolu sax la ñu waroon njëkkee wala dañ ne woon soo nuyoo bu pare ñu njëkkee loolee eh, di jàll waa Sénégal yëpp eh, rawatina ñi nga xam ne ñoo di umma islamique si génnub àdduna eh, ñaari kilifa diine wax nga ko léegi Baye Ablaye Thiaw Laye waaye tamit sëñ Abdourahim sekk mi nga xam ne moo nekkoon xalif général bu Thiénaba di ñaan rekk suñu borom tax ñu si seeni barke. Euh, sëñ euh, Ibrahima Thiam jamono ji euh, yow yaa jiite wala yaay secrétaire général bu INSERM loolu suñ koy tekki mooy lan. en fait INSERM moom mooy institut national de la santé et de la recherche médicale. Mmh. organisme buñ créé la en 1971. et lu tax mu taxaw moom mooy lépp luy recherche médicale. Hmm. rek lay def cest dire day saytu feebar yépp yu am si àdduna feebar nag boo mun a gis dañ koy saytu si biir dafa am ay chercheurs dafa am des administratifs dafa am des médecins dafa am des étudiants kuréel boobu nag dafa dafa tënk université yi tënk également organisme de recherche yi mmh. boo xoolee ni ñuy tëralee recherche Europe ou France exactement moom mooy boo duggee ci structure hospitalière bu ne da nga fay fekk médecin yi ci côté bi nga fekk fi université bi mu am centre recherche ñoo ñëpp lënkaloo nag pour def ne amélioration des conditions de vie et de santé loolu mooy objectif yi INSERM mm-hmm. recherche médicale yaa ngi koy wax mm-hmm. loolu lan moo ko différencier ak euh, ñi nga xam ñoo di médecin yi waaw xam nga médecin yàlla daf ko jagleel muy faj mm. euh, recherche ñoom yàlla daf leen jagleel ñuy def recherche mm. buñ demee nag ba yuutu ba gis lu ñu war a faj si lañ koy jàllale ba nga xam ne industrie pharmaceutique bi def ko mu doon médicament mm. ñu doog ko jébbal médecin yi pour képp ku feebar ñu xool lan moo lay ñu ñu xool lan lay faj donc buñ confondre médecin ak chercheur. Hmm. du benn ñu toll si tolluwaayu mbas Covid 19 mu def lu euh, jéggi dayoo si àdduna bi yëpp mais Sénégal kaawu Sénégal tey ñu am 31 décès euh, doon loo xam ne record la bañ tàmbalee ba léegi amuñu ko si vaccination yi Sénégal ku xam askan bi nga xam ne ñoo ko composé. on parle de plus de seize mille habitants ñu naan dix sept millions euh, dix sept million d' habitants plus deux millions la wax nañoo ñoo vacciné wu. Mm-hmm. ñu bëri nag ñii dañoo wóoluwul vaccin bi ñii dañ naan soo vacciné woo lii ak lii ak lii pour yow euh, fan la yëfi nekk ba Sénégalais yi euh, delta bi mu ngi def ay jéego loolu sax moo gën a tax ñu bëri dem di di vacciné wu mais lan lañ war a mën a def pour inciter euh, ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoo di mag ñi ñu dem vacciné wu. waaw man dama bëgg wax nit ñi ne mbas mi lu ko indi ñëpp dañ ci am responsabilité. dañoo am une responsabilité individuelle parce que ñun ñëpp dañoo baissé no gardes moom mooy nit ñi mesure barrière yu yuy saafara maladie bi nga xam ne dañuy sol masque dañuy raxasu ñu bëri demoon nañ ne ñu ne feebar bi jeex na fi boo gisee nag ñu ne feebar bi jeex na fi moom mooy njiiti réew mi si la tàmbalee ndax moom gëmoon na ne feebar bi jeex na fi ba mu commencé tourner di dajale ay mbooloo ñeneen ñi ne ko déedéet ñun tamit comme da ngay dajale mbooloo tànk boo tibbi ñu tibbanti ko mu doon tamit un slogan ñu gis quand ku mel ni tamit yeneen opposants yi ñuy def ay manifestations sans aucune barrière mais loolu moo gën a yokk feebar bi ndax feebar bi musu fi jóg feebar bi comme jógu fi nag dafa dem soppeeku mhm. c'est-à-dire feebar bi tamit boo koy xeex moom tamit dafa am jumtukaayam soppeeku duggu gën a jaaxal fajkat yi hmm. lenn nag moo tax ma ne feebar bi lenn koy saafaraal du amagul médicament ndax tolluwaan nañ fi waaye am na sax ay médecin ne ah oui ñun suñ maladie ñu ngi jóg parce que chloroquine lañ leen def loolu ay naxaate la waa ju ko doon wax ñu koy wax professeur Raoul da doon def buzz feebar bi waxtu yi ñu toll ni amul lu koy saafaraal lu dul vaccin. mais Ibrahima ñun fii Sénégal am na ñoo xam ne dañoo feebaroon Seydi ne chloroquine lañ leen doon jox ba ñu tane di ñibbi donc soo ne chloroquine bi wala da doon wut bës day jaaxal ñu bëri ñu lay seetaan. waaw mais bu doon chloroquine bi day yow léegi si sa njëlbeen wax ñaata ñaata nga ne ñoo fi wàññeeku si mbas mi ñooñu lu la joxuñu leen chloroquine ñu taxaw chloroquine musul faj lenn am na feebar bi kenn amagul. fas lenn lenn lañ gisagum lenn rek moom mooy vaccination te vaccination bi sax saafaralu ko day tax ne bu la dalee du la nga du la gaañ c'est-à-dire doo am la forme grave mais képp ku la wax vacciné wu nekk ci réanimation loo leen di wax forme grave mooy lan wala nga tekki ñu lan mooy forme de grave forme grave moom mooy yow mi nga xam ne dangay def recherche tey feebar bi am na ñoo xam ne bu duggee seen yaram mhm. man du ma def recherche je suis un financier. je travaille dans la recherche pour leeral ko nit ñi mais je suis. mu leeral comme yaa INSERM te léegi nii wax nga lan mooy INSERM. je suis o jàpp da ngay recherche. je suis au cœur du dispositif. ok mais man gëwuma mhm. ne forme grave boo vacciné woo di nga ko am. mais am na ñu nekk réanimation laa lay wax. mais ñu nekk wu. ñu nekk ñu nekk réanimation. wala loolu xamoo ko Sénégal. non xaw ma ko parce que. dañu war a génne si di politiser maladie bi am na ay médecins yu fi taxaw ne dafa am ay faux euh, négatif yoo xam ne dañoo jógee man médecin xam nga kañ laa koy gëm hmm. du kuy médecin scientifique laa bëgg a wax hmm. du ma ko gëm mu ñëw si tele yi di wax ni man un vrai scientifique bu gisee constatation bu am noonu day bind ce qu'on appelle une publication scientifique mais munoo taxaw rek di lëndëmal askan bi di wax ne gis nañ des faux négatif aujourd'hui ya a ce qui est sûr képp ku feebar bu ñu la defalee analyse PCR dinañ xam ne c'est positif ou c'est négatif mm-hmm. bu njëkk ba dëgg la ba muy doog a ñëw am maîtriser wuñ ko mais aujourd'hui fi feebar bi parce que feebar bi nañ fàttaleku depuis l'année dernière Chine la jógee mm-hmm. on a eu assez de recul pour xam lan moo koy faj lan moo koy lan moo bu la dalee yan manifestation lay am dégg naa fii ñoo xam ne dañuy nekk ci télé bi soit dañuy ut bës soit également dañu man ce n'est pas nga parewu d'argument scientifique pour révéler ne wéy gis naa koo xam ne dafa feebar def ki lenn am na mhm. jóg leen ñu ñàkku ji boo ñàkkoo feebar bi yàlla dina la ci dimbali mais xam na xam nga am na ñoo xam ne Ibrahima. Mhm. Euh, ñoom dafa am docteur boo xam ne su waxee rek. Mhm. dañuy gëm. Mhm. su ne lii la lii la su dee wax na lii luy la. ñu dégg ay docteur wala ay médecins yoo xam ne dañuy taxaw ci télé bi. di ŋàññi vaccin bi. ndax ñun ñi nga xam ne peut-être suñu xam-xam màcc ci loolu euh, dina dalal suñu xel. waaw médecin yi la docteur ne la man de duma vacciné wu. loolu dëgg la parce que feebar bi ba mu duggee ci réew mi kenn ku ne am na xalaatam ci biir. mais buñ fàttale ko ne waruwaay médecine ak recherche musuñ ko wax ci télé aujourd'hui y a un populisme scientifique mais médecin yuy taxaw di wax télé du médecin yoo xam ne dañuy gëstu ñuy gëstu buñ demee ba gëstu bi xam ne leer na leen dañuy def ce qu'on appelle une publication scientifique dans un journal bu am un impact factor boo xam ne scientifique yëpp dañu wëral leen ñëpp ne ci lépp lu fa génn lu taxaw la yomb na lool ku mel ni man nekk si télé bi di wax mais étayé ko par d'argument par des par des preuves scientifiques mm-hmm. chinois yi bañ génnee seen vaccin dañ ko génne quelque temps évaluer ko def une publication scientifique par une école de Shanghai ne c'est à 56 pour cent le valable donc boo ba feebar bi amee muy France muy États-Unis ci plateau télé yëpp médecins yi dañ doon daw di ñëw di wax kii ne spécialiste laa kii ne Covid amul spécialiste parce que Covid xamaguñ ku koy saafara lenn moo am luñ trouver moom mooy trouver nañ ay vaccin yoo xam ne buñ la ko dugalee sa yaram dina tax bu feebar bi duggee sa yaram du la gaañ parce que dañuy préparer sa yaram vaccin bi day préparer sa yaram pour que bu feebar bi ñëwee du la du la gaañ vaccin yi nag bëri na. russe yi def nañ vaccin ñu koy ooyee Sputnik. Mhm. chinois yi def nañ vaccin ñu koy ooyee Sinodarm mhm. Sinopharm anglais yi def nañ vaccin ñu koy ooyee euh, AstraZeneca les américains def nañ Pfizer ñeneen yi def nañ euh, Moderna et Johnson et lenn laa bëgg yee sax ci nit ñi vaccin du kenn koy defar parce que vaccin processus la yow da ngay doon scientifique di liggéey di liggéey ba gis benn prox ndool la ne lii kat mun na jëriñ askan nga bind ko. Hmm. keneen ñëw fu nga nekk mu commencé fa dem àgg feneen moo tax ñu ne recherche nit bu ñu nee médicament. Hmm. benn nit munu taxaw ne maa ko inventé. Hmm. parce que médicament kenn ki day jël si commencement liggéey jàmbu brevet jàmbu di ko continuer di ko continuer bu demee ba mët nag mu proposé ko. l'industrie pharmaceutique. Mhm. industrie pharmaceutique bi bu koy def balaa ñu koy defar lenn la ñuy njëkk a gëstu ñu amoon brevet ñëpp dañ leen war a jox seen xaalis. mais problème bi mooy. ba ñuy defar vaccin boobu. Euh, ñu mhm. bëri sóoraale wu ñu woon ne euh, vaccin bi day soppeeku euh, delta bi. Mhm. donc est-ce que sóoraale woon nañ ko aussi vaccin bi loolu tamit ñu bëri ñu ngi koy wax soppeeku bi nga xam ne vaccin bi am na te yaa ma gën a xam ne vaccin moom du du du efficace à cent pour cent. donc pourcentage bi nga xam ne des na loolu lan lay def ci doomi aadama bi loolu tamit foog ñu leeral ko euh, sëñ bi Thiam. waaw mais Souleymane. waaw yow si sa njëlbeeni wax. Mhm. dama ne la vaccin bi. vaccin bi ku ko defar day ne la efficace na cinquante six pour cent. Mhm. fu ñu la joxee cinquante six pour cent même bu dee maa ngi wax ak politiciens yi boo ko amee si si si élection jàll nga. Mhm. bu nekkee sa yaram jàll nga. Sinopharm bi ñu ne il est à 56 pour cent l'AstraZeneca il est à 70 pour cent et le Pfizer il est à 96 pour cent vaccin yi nag da nga ne lu tax du saafaraal delta bi. Hmm. na nga xam ne virus bi lu koy indi virus de départ bi. Hmm. dañuy ne virus Covid la. Hmm. mais virus bi day def lu ñuy wax mutation. mutation mooy bu duggee ci yaram. également ñun nañ koy xeexee moom bu duggee si yaram day copier léegi bu juumee si copie bi day créer beneen virus mhm. beneen ce qu'on appelle beneen variant du mhm. virus beneen variant c'est une variation moo tax ñu koy wax mutation la moo tax ñuy wax variant mhm. donc ba ñuy defar garab gi day fekk loolu amaguloon lenn wóor na moom mooy ñoom tamit buñ gisee variant bi dinañ ne ah virus bi de am na bu duggee si ay nit dina doon variant delta ñi ne c'est le variant indien ñeneen ñi ne la y a eu même le variant de euh, Mondor mm-hmm. mais loolu lu ko waral moom mooy dañuy dem constater ko mais ñu defar vaccin bi dañuy dem rek rectifier lu ñu defoon yokk si dose am na yoo xam ne sax jaru ko moom mooy variant bi da koy saafaraal kii astafurla kii bi da koy saafaraal vaccin da koy saafaraal mais mais Ibrahima. Hmm. li li ngay wax nii c'est c'est c'est intéressant mais dañoo dañoo gis ñoo xam ne dañoo vacciné wu. Hmm. au Sénégal. Hmm. dañoo vacciné wu. Euh, amaat Covid 19. walaate bi gaaw. ñu tëdd. am si ñoo xam ne dañ ñàkk seen bakkan. donc loolu man xam nga soo toogee dañu waxaat ne soo vacciné woo doo am forme grave doo ngi day xaw a jaaxal nit ñi. am na ñoo xam ne ñuy seetaan seen mbokk vacciné wu na te dee na si Covid 19. Euh, ça ça reste ndax vaccin yi nga xam ne moom la ñuy vacciner France comme ni ñu koy defee si yeneen produit ñu bëri dañuy wax ne lu originaux yi day dem fële foo bi ñëw Afrique est-ce que loolu tamit. non xam nga xam nga ñun dañoo politiser la Covid 19. Uh-huh. ba nga xam ne sax ñun politiciens yi dañ ko def moyen pour ŋàññ ñi fi nekk les autorités mais bu ñu waxantee dëgg xam nga nit ki booy avancer ni nit dee na mun nga ne fukki nit wala ñetti nit. opinion yomb na man mun naa toog sama koy rek ne gis naa ko vacciné de dee na. ah ma ko. nañ wane des preuves preuves yi aujourd'hui mhm. moom mooy diw vacciné na temps wàññeeku na man loolu lay xalaat mais boo toogee rek ne gis naa ñëpp ay gis loolu moo tax ma ne la gëw ma. Mhm. gëw ma. Mhm. ñu vacciné wu am ay problème au niveau de la Covid mun na la dal parce que vaccin bi dañ la wax lu leer vaccin bi day préparer sa sa yaram pour bu maladie bu kii bi duggee virus bi mu mun ko xeex parce que sa anticorps yi préparer nañ France bi nga jógee gisoo ko fa ku vacciné wu ba pare am jafe-jafe. mais bëri na bëri na. am naa am naa benn collègue. Uh-huh. médecin la. Uh-huh. vaccin ba mu njëkkee ñëw dafa am Covid bu grave. Uh-huh. ba mu amee Covid bu grave. Mhm. génn parce que temps yi amul vacciné. Mhm. mu vacciné wu si Pfizer bi. Mhm. ba mu fay jógee ñu testé ko positif. mais beneen bu ba mu ko njëkkee am daf ko tëral mu nekk sous assistance respiratoire. dama bañ a wax turam et c'est pourtant c'est une éminente euh, professeure à l'université de Sorbonne. moom bokk na si ñu ko njëkk a am. ba ma fay jógee également ma oo ko téléphone mu ne ma dañ ma testé ma ma am un test positif. Mhm. donc gis naa ko mais gisuma benn publication scientifique buñ ne diw vacciné nañ ko et mu wàññeeku si nit ñi nag ku ne day ne gis naa diw lii gis naa lii gis bi nag mu may leer. Mhm. bu fekkee ne danga ko étayer par une publication. Mhm. te li ma lay wax nii c'est étayé par des publications scientifiques. Hmm. am na solo mais am na ñoo xam ne aussi au Sénégal euh, gis na sax sa benn bataaxal bind nga ko suñu problème Sénégal mooy euh, nombre de doses yi nga xam ne moom la ñu am dafa infrieur ak ñi nga xam ne mooy euh, demande bi loolu tam loolu problème la am na ñoo xam ne AstraZeneca ba léegi mënuñu am seen deuxième dose di xaar ay ay initiative COVAX. waaw loolu ñaari njàngat ñaari jàngat lañ si am aujourd'hui il y a un nationalisme vaccinal. dëkk yuy defar vaccin yi dañuy ne nañ saafaraal suñ dëkk ba pare doog a jox ñu amul dañ leen di jox par coppet mu waral ne les anglais ñoom dañoo demoon ak les américains dañoo demoon ne sax duñu génne vaccin dañuy vacciner ba pare actuellement ils ont vacciné à tour de bras mais loolu tamit ñàkk vision la parce que nous vivons dans un monde global aujourd'hui bu fekkee ne nationalisme vaccinal bi moom lañ jiital ba nga xam ne dëkk yu sooke yi dëkk dëkk en développement ou sous développement yi nga xam ne mënuñ jot si vaccin bi mënuñ si jot ëllëg feebar bi du fi jóg. Mhm. donc mais loolu mooy première responsabilité deuxième responsabilité également ce sont les États ñun euh, sida bi ñëw na. Mhm. sida bi ba ñëwee waroon nañu jox leçon demoon nañ ba ñun. suñ feebari sida bi ñu ñu yoroon sida mënuñu woon faju parce que à l'époque les antirétroviraux euh, les antirétroviraux kenn munu ko woon jënd mm-hmm. il a fallu que ñu déclassé ko pour ñu mun ko am mais bu ñu amee expérience boobu am expérience Ebola waroon nañ pare parce que dakaar fii ñu nekk fii dañ fi doon defar vaccin ah aujourd'hui le président Macky Sall il a demandé l'autorisation ñu fiy def vaccin mais buñ faggande ko woon lii duñu ñu dal. Mhm. donc am na une responsabilité duñ ko imputer nag que Macky mais dañ ko imputer tous les régimes yu fi jógee mais balaa may pare dafa am loo xam ne lu am solo la si dëkk bi na fexe autorités yi indi fi vaccin. Mhm. mais aussi nañ fexe. les leaders d'opinion joxe exemple parce que am na ñoo xam ne vaccin yi ñu ngi fi woon ah mais am na ñoo xam ne dañoo bañ a vacciné wu. Mm-hmm. man. lan mooy solution bi. rafetluwuma lenn ku mel ni Ousmane Sonko. mu ngi taxaw di génne ay statistiques lu mu wax yëpp jëlewu ko fen mu ngi mu ngi ne bann bannaaral ci internet. Mm-hmm. muy wax statistiques yi laaj nañ virologue. mais ñu bëri ci moom lañ ko xamee aussi. non leader leader no leader politique. Mm-hmm. dafa war a joxe un exemple xam nga l' exemple est quoi na simmeeku dem parce que moom nit ñi xale yi jox nañ ko kanam te xale yi ñoom ñooy am ñooy soupçonné ne vaccin bi wóorul ak lii lañ ci def ak lii lañ ci def boo doonee leadership c' est vrai que vaccination nag c' est une responsabilité individuelle. mais boo doonee un leader un leader. Mm-hmm. il faut nga joxe l' exemple. Mm-hmm. man lu ma ko boo xam ne état bi ñu ngi def complot yu ne comme ni ñu koy waxee ngir faagaagal la peut-être loolu yëpp day xalaat moo tax mu bañ a vacciné wu mën na dem ñu cuus ko loo xam ne su demee këram dee. xam nga ngay ñaaw njott aussi. xam nga xam nga xam nga buñ tollee foofu si politique bu yaboo. Ah. gisuma benn dëkk. Ah. parce que mënuñ ne aujourd'hui on gouverne. Mm. par les idées. Mm. on s'oppose par les idées. Mm. aw ma gëw ma ne gouvernement bi am nañ intérêt. xalaat nañ ko traversé na seen esprit parce que li nga wax nii c'est très grave mhm. bu ñu demee ba ñu foog ne dañ koy jéem a rey ci vaccin mhm. à la limite pour man loolu nga xalaat ko sax c'est quand même abject. gisoo ne sax dakkal na maye deret yi nga xam ne da ko doon amal. parce que bu ko initié woon. non non non mais ba ko arrêté. non ñaari affaire am na si homme politique yi. Mhm. Macky Sall moo waroon jox exemple joxe na ko mais il il a donné le mauvais exemple dinaa ñëw si Sonko. Macky sàll il a fait par exemple une vaccination VIP. Uh-huh. dem dajale këram nit ñi mais bu demoon Gaspard kii walla mu dem ki ñëw daagu fa vacciné wu nit ñi ne ah vaccin bi la def mais këram la de nit ñi di wax ndox lañ ko. kii ndox mi Ousmane Sonko. Uh-huh. taxaw si télé bi. di ŋàññ Macky Sall lii la statistique yi la li lu mu leeralul dara. Mhm. nañ ci ñëw mbirum Ousmane Sonko. non non non dama bëgg a man dama bëgg a wax rek nañ jóg. li leer leader politique yi fi nekk yépp mhm. pour inciter la population bu boobaa dinañ mën a ŋàññ pour même le président de la république ne ko ñun joxe nañ exemple. Mhm. na vaccin yi ñëw ñëpp vacciné wu parce que sur une population de seize millions. nga vacciné que un million. mais kañ ngay am immunité. am na solo leneen loo xam ne Sénégal dafa am jafe-jafe si euh, mbirum infrastructure sanitaire loolu dañ koy wax. Mhm. bërëb yu bëri peut-être hôpitaux ñu ngi fii mais plateau médical bi euh, nu mu waroon demee demeewu ko euh, yenn CT yi sax si première vague bi deuxième vague bi lu fa nekkoon ba docteur Babacar Niang du ñu xamal ne yu bëri dañ ko jël jaay ko dañ jaay ko privé bi loolu tamit est-ce que dina tax Sénégal avancé. waaw vraiment jaay ko privé bi mënuma si wax ndax loo xam ne la c'est sa responsabilité moo koy wax mais lenn moom constaté naa ko mënuma comprendre que ba ñu nekkee si mbas mi delloowuñ suñ xel ne suñ hôpitaux yi dañ koy defar boo seetloo ñoom ba ñoom ñoom bayre yi buñ feebaree dañuy génn faju ci mm-hmm. moom mooy lu ñu yor fii baaxul mm-hmm. amuñ infrastructure pourtant on a les meilleurs médecins du monde l'université Dakar fait partie des meilleures universités yuy former médecine Maroc gëlee nga gis ñu fay faj si hôpitaux yi si cliniques yi en général majorité bi ñu ngi defee euh, seen études à l'université de Dakar mais c'est parce que faggandeku wuñ ba am ko comme lu ma doon wax rek ñun foog nañ ne bu mbas amee ñu ne jënd leen ceeb ak diwlin bu inondation amee ñu ne jënd leen ceeb ak diwlin nañ toog am une autre vision vision bi nag c'est une vision que man décliné naa ko avec une trentaine de scientifiques africains mhm. mu ngeen ko xool sur qui euh, sur le sur les comment dirais sur le net ou dans beaucoup de journaux même jusqu'au Mali Bénin génn na fa où j'ai nous avons signé ensemble une tribune pour demande le renforcement des infrastructures sanitaires dans nos pays. parce que ceeba diwlin bi da nga ko da nga koy ñaawlu. dama koy ñaawlu parce que c'est une résilience peut-être sur cent milliards. sur cent milliards. Ah. sur mille milliards. mais ñaata ñaata lañ ci jënd ci lits d'urgence ñaata oxygène lañ am feebar bi ba mu ne këtt ne. jon jamono jooju am na ay sénégalais yoo xam ñu ngi xiif. waaw mais di sukaraat bëgg a dee. maa ngi am sama benn xarit bu ma seetaan. am na ñu la mere de. non non buñ ma mere. Ah. parce que. parce que dañu naan kii France la nekkoon bàyyi ñu fii ñun ñuy xiif mu ne mu àndu si jënd ceeb bi. est-ce que gis nga est-ce que ñëpp a gis couleur yi ceeb bi yow gis nga ko. couleur ceeb bi nu mu mel. Ah, déedéet comme comme dama si doon lekk dafa baax. ñoo non mais dañ la gouvernement bi dañ la doon dañ la jox ngay lekk. kan man. ah non dañ ko jox ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw. gis gis nga ñëpp ñu ngi ko jox. gis naa ñu ngi ko jox waaw. ah man fan la problème bi nekk dafa am problème bu si nekk te nit ñi xamuñu ko. non man mu leer man du ma tuumaal. dama ne. non dama bëgg mu leer parce que. dama boo man du ma tuumaal kenn ah. dama ne. couleur ceeb bi. Ah. kumba am ndey la kumba amul ndey. am na ñu si jotul loolu sax du du wax ji tey xam nga luy wax ji ceeb mun nañ ko jënd. parce que tout est une priorité dans ce pays. wante si boo tegee ceeb. Uh-huh. war nga xalaat tamit fu ñuy wérgu yaram nan lañ koy saafarale war nga xool dans les centres de santé nan la ñuy def di dépister nan la ñuy def di am de de l'oxygène partout parce que delta bi tey am na ñoo xam ne ñu nga toog seen kër ah, di xaar li liste d'attente kenn mënu leen jël. Mm-hmm. ceeb bi. dëgg la am na peut-être même saafara mm. cest a dire xeebuma ko mm-hmm. parce que man lu may wax rek nit doo ko xeebal lu muy liggéey effectivement mais mun nga ne loolu doyuma waxtu wi ñu toll nii nag gëmoon naa ne waroon nañ def ay jéego jënd ay matériel médical parce que boo xoolee fii Sénégal même ñu am problème de dialyse mm. mais c'est la croix et la bannière pour ñu def ko ñu am cancer radiothérapie bi am na dañ doon dem Maroc et j'attire l'attention et là il faudrait que wóor destement woor mais il faut également ñu xool ko même chimiothérapie bi parfois il y a certains médecins qui disent que il y a certains cancérologues qui disent que médicaments yi ñuy faral di indi pour def chimio chimio venant de l'Inde leur efficacité reste à déterminer hmm. loolu nag je pense que loolu yëpp dañ ko war a saytu dëgg la amuñu xaalis mais dañu war a góor góorlu ci ñaari secteur mhm. éducation ak santé lu si des yëpp nag mun na topp mais pour man lu gën a am solo si mhm. dëkk mooy éducation et santé am na question bu ma la posé léegi mais da nga ko da nga ko brosse mooy docteur Babacar Niang parce que dañuy dégg Seydou Gueye aussi euh, mi nga xam ne dafa bokk ci gouvernement bi Eh, ne wax ji mu wax dafay tax ñu gën a leeral yi fii te su sañoon ñu ñu leeral ko yow sa sa appréciation par rapport ak euh, li nga xam ne moom wax na ko. waaw man man docteur Babacar Niang lu mu jiiñ ne ñii dañuy jaay ñii dañuy ñii ñii dañuy jaay ñii dañuy jënd public bi day jaay public privé bi di jënd je lui laisse à, à, à sa responsabilité et comme c'est une affaire pendante au niveau de la justice je me prononcerai pas en revanche. Mm-hmm. je veux attirer l'attention ne leen docteur bi il a parlé beaucoup d'ineptie benn par benn première premièrement taxaw na télévision Sen TV et je voulais même ñu invité ñu ñu ñaar taxaw na ne moom ba mu doonee professeur de médecine dañ na ko ne ñëw vacciné wu Euh, hépatite B ñu ne Sénégalais la ñu génne ko parce que dañ ko bëggoon essayer ci nit ku ñuul. lu wax du dëgg. loolu du dëgg du benn dëgg. lenn moo am attends Ibrahima fan nga teg ne du dëgg pour mu leer aussi. mais parce que man doo ñëw ne du dëgg rek ma bàyyi la nga def. parce que parce que dëgg lenn dafa am dama ko bugg ñu leeral nañ dëggantoo rek. effectivement non leeral moo tax ma invité la. vaccination dafa effectivement hépatite B dafa amoon benn vaccin mu am si benn lot. Mhm. boo xam ne ñu ko vacciné dañoo am sclérose en plaque. Mhm. essayé wuñ ko fenn même en France ñu ko fa ñu ñu ñu bénéficier loobu dañ ko am et c'est une affaire qui est con qui continue d'avoir des rebondissements juridiques en France bu taxawee ne moom dañ ko bëggoon a essayer dëkk bu mel ni Fatick par une université ay waxi kesew kesew la parce que man jusqu'à preuve du contraire loolu tegu ko fenn mm-hmm. je travaille dans la recherche ensuite dégg naa muy wax ne dañ waroon a essayer vaccin bi parce que vaccin bi état de test la test thérapeutique la vaccin balaa muy génn balaa muy génn mhm. day jaar si ñetti phase première phase deuxième phase si deuxième phase bi bu nga xamee ne amul ba troisième phase bi ñu doog ko valider def ko mise autorisation dans le marché lenn am na mu ngi wax dañ ko waroon essayer si ay souris recherche dafa am ay modèles animaux yu ñuy utiliser balaa muy àgg si nit duñ ko tester mukk si nit balaa muy àgg dañ koy utiliser sur des modèles animaux mm -hmm. ce qu'on appelle des modèles murins ñu essayer ko muy dem buñ demee parce que yaa buñ jëlee chimpanzé am na ñoo xam ne chimpanzé ñenn ñi ay mouton ñenn ñi souris la ñuy utiliser buñ demee ba nga xam ne affaire bi leer na ñu commencé def test test yi effectivement c'est à la responsabilité am na ñoo xam ne dañ leen di fay ñuy testé. Mhm. AstraZeneca ba mu génnee quarante deux mille personnes ñoo ko testé ba xamee ne amul benn réaction ñu saytuwaat ko doog a nangu une mise l'autorisation dans le marché donc bu taxawee fii di wax dañ ko waroon def yaa une xawma une dose létale du da ngay wax de propose des arguments scientifiques rek pour ne li ngay wax. taxaw na moo tax dama bugg a yee nit ñi nañ bàyyi politiser aujourd'hui la maladie est-ce loolu ñu tardeel mais looloo ñu tardeel bu fekkee ne dafa am problème ak Macky Sall wala gouvernement mu régleel ko boppam ak suma mais bu mu fi toog pour wane bës man je suis wut kon jamono mais mais dafa meloon ni le docteur bi le docteur bu doon kenn déggatu ko rawul mais à un moment donné tu peux être un brillant scientifique mais am na foo fu muy toll yow tu en perte de vitesse nga bëgg a wane sa bopp. docteur Thior nag lu mu doon wax immunité collective bi moom it. Euh, da nga ko déggati. moom it lu mu doon wax yëpp ay waxi kaso mais déggatoo ko ñu ngi si variant bi nit ñaa ngi nit ñaa ngi nit ñaa ngi bàyyeeku wàññeeku bi kenn xamul ñaata la bale ñaata la ñu yóbbu cimetière yi. Mhm. buñ naxante sunu bopp lenn lañ amagum mooy masque gel ak vaccin. Mhm. nañ góorgóorlu vacciné wu. te gouvernement bi faire tout pour que dose vaccin yi mën. am na solo ji fàttali na ñu ngi dalal euh, Ibrahima Thiam moom la ñuy waxtaanal moo jiite tamit euh, mouvement bi nga xam ne moo di un autre avenir euh, ñu gis la nga bind benn bataaxal mun nañ ko tuddee noonu nga ne Ousmane Sonko laroseur arrosé. Mm-hmm. lu tax titre boobu. en fait sax nit ñi ko tuddee la dama ne le diable se cache dans les détails. parce que. ma gis arroseur arrosé laa gis. oui parce que qu'est-ce qui me différencie de Ousmane Sonko c'est que moom il veut trancher le débat politique par la violence et dans la rue lépp lu xew parce que état. Mm-hmm. mun nga ko contre. par des idées mu nga ko xeex par des idées. Mhm. état tamit mu ngi tëral nguuram par des idées. Mhm. bu ñu xoolee jour ba ñuy voté assemblée nationale sur une loi liberticide man lu ma doon xaar sur l'opposition parlementaire en général au lieu ñu toog ba vingt une di oote population bi jóg leen di yëkkati fitna. jóg leen moom mu dem ba ne xeex naa ko dóor naa ko ba futti ko mais loolu pour man c'est une irresponsabilité politique mmh. parce que ba may doon xale damay fàttaleku te maa ngi jël euh, les les téléspectateurs témoins amoon nañ temps yi temps yi PDS PS nekkoon fi bu amoon des proposition de loi ou des projet de loi mmh. dañ doon fàttaleku ku mel ni Fara Ndiaye na suuf sedd si ko muy def une contribution même bu fekkee ne amendement yi nanguwuñ ko je me rappelle de d'une de ses sorties où il disait que sénégalais boo laaj comment tu vas il se répond sénégalaisement et il a essayé de dire que sénégalaisement moom mooy dañoo sooxe. Mmh. mais à l'époque c'est dans l'arène parlementaire la ñuy def opposition léegi nag ku mel ni les oppo moi c'est c'est la radicalité de Ousmane Sonko en lui-même c'est quelqu'un nous partageons peut-être là le euh, Sénégal mais conception de lutte du pouvoir la d'accord parce que booy xeex pouvoir ba jël ko ci mbedd mhm. ci mbedd nga koy bàyyi wax nga ne c'est un facteur euh, dangereux pour la démocratie loolu tamit wax ji xaw na xaw na rëy de Ibrahima oui parce que parce que man dafa am lu ma gëm parce que man yaa ngi opposition Ousmane Sonko mu ngi opposition te d'habitude dañ leen gis ne même nit euh, su ngeen nekk opposition sax mu def yenn yi di nga ko woo si ruq mais danga nga koy doo ko yedd si penc. non moo waxtaan ak moom. moo wax la moo wax leen leen xam na man lan laa gëm. waaw il faut que Sénégal jóge sur une bipolarisation politique de l' espace politique Ousmane Sonko vs Macky Sall tey dañoo toll foo xam ne. Mhm. il faudrait une troisième voie une troisième voie plus démocratique. plus républicaine parce que munoo ne opposition parce que opposition dafa yomba ñii politiciens yi ñii dañoo bootu si gannaaw Macky Sall ñu koy ooyee majorité présidentielle. Mm-hmm. ñeneen ñi bugg bootu si Ousmane Sonko di wax moom c'est c'est l'opposition radicale man gëwuma loolu y'a une troisième voie kii ñu bokk ñu mel ni man at ñu mel ni Thierno Alassane ñu mel ni. juge dem ñu ngi koy incarner c'est-à-dire Macky Sall bu defee as suuti lu baax mun nañ ko wax ndagam sax lu mu def bëriwul bu bu kiyee defee leneen loo xam ne naka su dul noonu mun nañ ko ŋàññ mais munuñ dëkk parce que Sénégal dafa yomb léegi boo buggee ñu ne opposant nga rek da ngay ŋàññ président de la République mais ñuy wuutu demee dëkk bi te kenn nangu leen ku leen critiquer man je pense que ni ñuy critiquer Macky Sall sur sa sur son immobilisme noonu lañ war a critiquer ku mel ni Sonko pour sa radicalité parce que loolu mooy àdduna par contre maa ngi attirer les la population sénégalaise que y a une troisième voie qui est possible mm-hmm. c'est une voie beaucoup plus républicaine beaucoup plus démocratique ñooñu lépp ils vont s'opposer par les idées troisième voie boobu ndax euh, di ngeen pare yéen taxawal benn kuréel boo xam ne yéen troisième voie bi rek ñoo fay nekk wala ba léegi ku ne day demal sa bopp rek ngeen incarné troisième voie bi. non troisième voie bi courant lay doon xam nga ñun Sénégal dañoo tàmm rek lu ñu wax ñu ne coalition coalition nag lu koy lu koy suuxal moom mooy dañuy dajaloo buñ paree on va se partager le gâteau du Sénégal loolu sonn nañ si c'est-à-dire euh, boo xoolee benn bokk yaakaar on voit toutes composantes. nga nga dugg si biir kenn ku ne ñu ñu may la dara waa PS yi ñoo war a jël lii kii dina xeexal ëllëg également ñu commencé woon nañ ci coalition y aura une coalition de l'opposition radicale avec des activistes bu ñu gañee Sénégal séddoo loolu du Sénégal il faudrait qu'il y ait une opposition plurielle. mais Sénégal kenn mënu ko gagné. kenn mënu ko xam nga par yaa ngi wax yaa ngi wax ne dañuy gagné après ñu séddoo gâteau bi. mais mënoo gagné Sénégal sans défaut coalition. c'est impossible au Sénégal Sénégal kenn du ko gagné dañ koy liggéey. xam nga Sénégal gagné bi lañ war a baax Sénégal tey aujourd'hui dañ ko war a liggéey. kuy dem élection doo gagné Ibrahima. non booy dem élection danga nga ah. war a gagné mais ah. doo gagné Sénégal da ngay gagné élection mais doo gagné Sénégal ah. ngay gagné élection gagné élection dégg dégg la laaj gagné Sénégal mooy Sénégal. Euh, quatorze région yu fi nekk di nga ko wër. mais mais mais Souleymane pour man si dégg-dégg boobu moo tax ma ne la. Ah. pour nga gagné Sénégal. il faut nga boole ñoo xam ne ñoo mun a ànd mais dès le départ. Mm-hmm. buñ ne. demaguñ fenn aujourd'hui on peut avoir lenn gëm naa ko mu am une coalition programmatique mais coalition yuy am moom mooy dañu bëgg a gagner moo tax ma ne la kenn du gagner Sénégal il faut bâtir un programme ensemble républicain pour aller à l'assaut maintenant gëwma ñu dajaloo man neex nga ma yow neex nga ma ñu bokk dem jël élection yi bu élection yi jotee ñu ne diwkat nañ ko nañ ko cëralee lii Sénégal kan lay cëru moo tax ma ne gëm na une opposition plurielle avec un programme bien déterminé mun nañ am nag effectivement un socle programmatique. yow ndax am nga programme boo xam ne tëgg nga ko ba pare pour Sénégal. ñun mouvement bu ndaw la ñu ngi doog a door mais lenn xam nañ ko on fait un diagnostic de ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ce pays et si biir loolu bind naa benn livre tudde ko un nouveau souffle pour le Sénégal parce que parce que nit bu ne day wutu réew mm-hmm. man awma solution man rek awma solution mm-hmm. lenn laa xam moom mooy jéem naa def un diagnostic si diagnostic bi yemuma fa rek jéem naa def des proposition yuy rectificative mhm. buñ demee nag ba nga xam ne ëllëg sénégalais yi nañ génn si seen xel ne benn nit rek mooy defal réew parce que loolu moo ñu waral on fait toujours des choix par défaut parce que sarisation politique bi dañ ko war a arrêter nit ki bu fekkee ne dafa bugg a jël Sénégal effectivement moom rek mënu ko liggéey le Sénégal a toutes les compétences mais nañ dajaloo waxtaan am un socle de programme pour dimbali parce que dëkk ñu am si àdduna yëpp jóg seeni doom ñoo ko def. mais est-ce que mouvement bi mën nañu dem ba ba mu ba nekk parti politique. mais fii ak 2024. mais mouvement bi déposé nañ ko parce que ñun lu ñu soxaloon. Mhm. c'est un mouvement en marche parce que parti politique yi dafa doon des parti classiques dañ lay wax. parti Ablaye Wade Ablaye Wade da ko moom. parti Macky Sall Macky ko moom. amul changement parti Idrissa Seck Idrissa Seck ko moom donc l'esprit de parti dañ ko war a bàyyi nga xam ne on fait la promotion d'un homme nous on a voulu effectivement dans la structuration constitutionnelle amul mouvement politique parti moo am. donc on a déposé pour devenir pour répondre. effectivement à une attente moom mooy parti mais dans la conception nekkuñ parti parce que un autre avenir du Ibrahima Thiam mm -hmm. un autre avenir c'est un ensemble qui un ensemble de personnes bu bëgg un autre avenir pour ce pays mm am na solo nga daanaka lu ñu wax dese si waxtu euh, bëriwul euh, livre bi aussi euh, da nga ko da ko génne ñu commencé ko ma part de vérité mooy sa euh, xalaat rek si yenn wala joxe sa yenn dëgg yi euh, si yenn sujets yi nga xam ne ñu ngi jóge si réew mi ba si Afrique sax gis nañ ko fi euh, mais nga gis aussi foo xam ne yaa ngi wax si par rapport ak ñi nga xam ne Adama Gaye yaa ngi koy tudd ñoom Guy Marius Sagna ni nga xam ne dañ leen di jàpp ak suñuy joxe seeni xalaat ak yooyu yow loolu da nga koy ŋàññi. waaw en fait ma part de vérité maa ngi maa ngi profité def publicité bi. jëm mhm. leen ko jënd parce que c'est une boo xam ne dafa mel ni un journal lu xewoon deux mille dix neuf je pense. Mhm. deux mille dix huit actualité bi laay commenté. Mhm. bañ jàppee sunu mag Adama Gaye mu doon sama mag effectivement ñu bokk Kasnack Kaolack. Mhm. ñu jàpp ko sur des idées moi je suis contre mu am des délits d'opinion ñu jàpp ko mel ni Guy Marius Sagna mu doon des délits d'opinion donc j'ai commenté l'actualité politique de cette année-là. moo tax di nga retrouver sur ma part de vérité les sujets yu doon traverser le Sénégal. Mm-hmm. ndax Adama Gaye dafa war a wax lu ko neex. ndax Adama gay dafa war a wax lu ko neex. man si sama wàllu bopp. Uh-huh. dama ne kenn ku ne. Uh-huh. c'est à sa responsabilité de dire maintenant il y a une liberté d'opinion. mais uh-huh. la liberté d'opinion a également ses limites. maintenant Adama Gaye lu mu waxoon ñu tëj ko je suis totalement contre. ñu jàpp ko. ok euh, la presse et les au Sénégal yaa ngi ciy wax aussi euh, journalistes yi lan mooy problème am na looy yenn yoo xam ne yaa ngi ci dugg si biir ay euh, journalistes yoo xam ne su ñu demee ba épouser ay politiciens est-ce que dinañ amati yenn liberté yi euh, loolu tamit euh, dafa am problème. waaw waaw def métier gis kenn ngeen bëggante ngeen takkante nan la yàq si liggéey bi. waaw man nag xam naa ne. c'est un sujet glissant mais j'ai le courage de le dire ouais. peut-être dootu leen invité mais en réalité je dis ce que je pense mm-hmm. pour man le journaliste n'est pas là pour dire la vérité il est là pour déconstruire le mensonge mm -hmm. hmm? et le trouble mm-hmm. mais bu ñu demee ba nga xam ne journaliste yi dëgg le nit day am foo far mais boo encarté woo torop dootoo am une analyse logique Mm-hmm. te ñun dañoo seetlu ñu bipolarisation politique bi amee noonu la amee bipolarisation médiatique journaux yi amul la grande majorité da ngay fii wala fële de ce fait kenn xamatul quelle est l'analyse journalistique am na on a de brillants journalistes on en a mm-hmm. munoo ne dëkk bi da ngay ngaañ ci yëpp mais c'était pour moi locasion de de faire une réflexion en disant que qu'est-ce qu'un journaliste qu'est-ce que la presse et si biir presse bi effectivement dama ne yaa y a une connivence entre le monde politique et le monde médiatique te loolu kenn mënu ko weddi. Mhm. Mhm. Euh, un nouveau souffle pour le Sénégal fii loo fi wax moom. mais c'est parce que le Sénégal dafa sooke. dañu am problème. mais dafa sooke tous les secteurs fii ñu nekk nii ñu ngi commencé wax mbas mi amuñ des lieux amuñ des d'urgence ñu ngi commencé wax au niveau économique. problème yi effectivement dëgg la mbas mi dafa daaneel économie yépp mhm. ba nga xam ne ñun suñ taux de croissance bu ñu doon calculer bu doon am des taux de croissance à 7 léegi dafa am des taux de croissance qui frôlent même euh, le négatif mais loolu bu amee également il faut pour ñu créer benn une résilience économique du nii lañ koy defaree. mais Ibrahima yow yaa ngi ci. Euh, Euh, kujje gi mën nañ ko tuddee noonu. di mhm. opposition bi. Mhm. am nga ay xalaat. Mhm. nguur gi peut-être am na foo xam ne sooxe nañ. yaa ngi am ay proposition mu ngi sa livre bi. pourquoi pas jege njiitu réew mi euh, fexe war ko jox ko proposition yi pour Sénégal mun a mun a émerger comme ni ñu koy waxee. waaw mais luy jege man sàkkuwuma liggéey ah luy jege njiitu réew mooy ma dem liggéey ak moom man dama ne man Sénégal a ma ñor. Sénégal moo ma ñor mais boo boo bindee def livre kay moom mooy tu la partagé aujourd'hui un nouveau souffle pour le Sénégal il est partout aujourd'hui ma part de vérité il est partout sur tous les secteurs que ce soit le sport que ce soit euh, la santé l'éducation tous les sujets sociétaux abordé naa ko tous les sujets économiques mhm. waxuma nag ne c'est la solution parce que nee naa ne amul solution mais def naa si un diagnostic personnel def des propositions personnelles. Mhm. nga ne la pêche euh, mère euh, nourricière ndax euh, jàpp nga ne suñu napp gi war na mun a jëmale réew mi kanam. mais suñu napp gi mun na jëmale réew mi kanam parce que ñun dañoo am chance entouré d'eau dañu mais il faut ñu am une politique bu koy suuxat mais bu ñu bàyyee bateau de pêche yi di joxe des licences à tout va aujourd'hui mënuñ contrôler effectivement nos frontières maritime sunu. Euh, euh, nappkat yi duñu am dara fii mu nekk nii kilo yaaboy ñaata lay jar bu njëkk ba yaaboy jarul cent franc mhm. dañ ko boo ñëwee sax dañ la koy may mais léegi sunu nappkat yi dañuy dem ba si biir géej gi mënuñu am yaaboy et de plus en plus day gën a métti c'est parce que derrière amuñ une réelle politique boo xam ne dina sauvegarder l'économie maritime mais bu doon wax bu suba du jeex. parce que tuuti rek. pour gars yi peut-être ñu am si benn aperçu. parce que pour ñu am si benn aperçu. waaw à un moment donné il faudrait ñu marquer les zones de pêche. Mm-hmm. bañ jël les licences de pêche comme nu ma ko waxee di ko jox fu ne. également au niveau des filets parce que am na ay façon ni pêche yoo xam ne day détruire l'espèce ba nga xam ne reproduction bi du am. Mm-hmm. donc même ñuy pêcher si ñu leen di jox des autorisations il faudrait continuer à veiller peut-être ñun dans l'architecture bind nañ ko wax nañ ko lii nga war a def mais nan lañ koy contrôler am facilité di mun a contrôler not espace maritime et loolu pour ñu am ko également il faudrait réellement ñu teg des dispositif mhm. au niveau des pêcheurs borom gaal yi dañoo dem bu amatuñ pêche léegi dañuy jéem a jël gaal yi di yóbbu xale yi ñuy dem mais lu ko waral donc on est dañoo toll foo xam ne suñu pêche bi day soxe mhm. aujourd'hui j'ai nous avons élaboré un certain nombre un certain nombre de propositions dans le livre mais voilà ce sera l'occasion mu profiter képp ku ko bugg am mhm. le livre et à disposition mmh. et puis mbay mi aussi xam nga mbay Sénégal problème la ndax jamono jii may wax ak yow suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi Saalum Euh, ñu si bëri mun ñu jot ci li nga xam ne moo di moo di engrais yi wala suñ ko jotee amit ñu boroom doole yi ñoo koy jëlaat euh, di ko di ko di ko jaay te am na ñu bëri ñu si mënta jot loolu pour saafara fa euh, nan la ñuy def Ibrahima. waaw moom mooy ñu ñu yeyoo mbéy mi ñu jox leen ko ñu parce que aujourd'hui da ngay gis am na ay hommes politiques di wax mbay mi man ñaata engrais lañ ma jox ñoom sax si seen biir. dem nañ ba. di si saafonto seen biir diw lii la def diw la def loolu rafetul si askan bi mais am na également benn affaire bu mooy la l'attention c'est à l'encontre des activistes parce que le problème de Ndingler doit nous inciter à réfléchir dañuy indi benn nit mu ñëw taxaw ne si suufi maam la depuis soixante-dix ans munu si dara defu si dara ñu am man xaw ma kuy Pam Ngom ah, xaw ma ko mu ñëw ne man dama ko bëgg a valoriser hmm. nit ñi taxaw ne noo suñ suuf la suuf suñ jul def dara mais ngir yàlla yonent bi nañ bàyyi des position politiques lépp ñu politiser ko parce que dañoo contre ñu fi ne nañ jéem a xool luy yokk réew mi kanam c'est-à-dire tey bu la yàlla dënkee doole nga ñëw sa gox gox bi nit ñi saret lañ yore ngoosi ngoosi lañ yore yow nga mun ay jënd Euh, tracteur nga mun a ñëw jël un certain nombre de d'hectares defar ko mais ngir yàlla ak bi nañ la bàyyi nga liggéey. Mhm. booy liggéey di nga jël doomi gox bi et puis mais loolu mooy doxal réew kanam ah. mhm. mais dañoo tàmm. activistes yi ñëw taxaw yuuxu suñ suuf la suñ suuf la suuf soo xam ne jëriñoo ko lu muy jëriñ révision euh, list électorale ñu tàmbali ko euh, tey ñu dégg ay ay commission fictive yu bëri yoo xam ne am na benn géeg nañ ko daara euh, ñu déggaat beneen tamit bu yàggul Joal loolu ndax du indiwaat jeexi jaaxaa si transparence au Sénégal man man Souleymane loolu bu amee day tey xel mais mm-hmm. xamama lan lay bañ mm-hmm. lu ma desee wóor mm-hmm. xam nga xam nga ŋàññ ni danga koy ŋàññ si lu wóor teg ko si lu wóor bu dee loolu am na vraiment nit ñi war nañ rafetalaat seen doxalin bu dee nag dañ ko wax rek parce que waxi par parloo la loolu day yàq réew parce que à un moment donné on fait germer une certaine violence suñ dëkk bi nag looloo ko yàq man je suis ni pour Macky sàll ni pour Ousmane Sonko ni pour tous les radicaux ni également pour certains activistes parce qu'on a vu les activistes je voulais pas xam ne dañuy ne woy France dégage ou bien euh, Chine dégage et tout mais dañuy dëgg xaw ma dëgg la wala du dañuy jaay visa pour yóbbu suñ xale yi dañuy dëgg nañ bàyyi naxante bi suñ biir le Sénégal je veux pas citer de nom. mais dama xam naa doo citer man maa la citer. waaw gis naa sama mbokk Kaolack la sama raq la. Uh-huh. gis naa ñu. ñu génne vidéo bi mais bu fekkee ne am na c'est quand une leçon à prendre que Sénégal a c'est fait partie le monde aujourd'hui est un monde global mmh. on a besoin des Chinois on a besoin des Arabes on a besoin des Français on a besoin des Russes lenn rek mooy am fayda nañ xam ne fulla mooy jaay Dakar ñun lu ñu am ñu sàmmal ko suñ bopp ba kuñ koy liggéeyal duñ perte mmh. un autre avenir ñu ngi waajal 2024. bu neexee yàlla un autre avenir dina am candidat comme nag lu ma ko waxee woon un autre avenir du un autre avenir Ibrahima Thiam parce que loolu bu amee c'est qu'on reproduit le même schéma des partis politiques aujourd'hui on travaille au niveau de notre avenir pour faire émerger un candidat à l'intérieur de notre avenir on peut avoir plusieurs candidats moi je suis un candidat à la candidature de notre avenir Inch'Allah pour 2024 mm -hmm. et il se pourrait avec l'extension avec vraiment la marche du mouvement ñu am d'autres personnes beaucoup plus compétentes bu mun a représenter notre avenir lenn rek a ñu ñoral c'est le Sénégal et nous espérons demain pouvoir disposer d'un représentant bu mun a soqali réew mi. sànq yaa ngi doon Covid 19 vaccin yow Covid Sénégal. ban ndimbal nga indil waa Sénégal ci Covid 19 bi. ah loolu nag. parce que dégg nañu sànq bu léegi yaa ngi wax Covid vaccin di ŋàññi gars yi di wax. mais yow lan nga def ci Covid. man lan laa war a def Sénégal man damay liggéey salaire bu ma am doyul sax sama njaboot dañuy waxtaan xam nga poli xam nga xam nga politiciens yi li ñuy def. damay jënd bonbon damay jënd tàngal seddale ko ça c'est la responsabilité de l'État bés bu ñu ma dénkoon Sénégal Covid 19 kenn du fi toog ne jënd naa gel di maye si gox loolu opération électorale la duma ko def li ma am doyul sax sama njaboot. gars yi defuñ ko woon ngir yàlla. mais dañ ko def pour ngir sel dañ ko def pour ñu fay leen bu élection yi jotee ñu fàttaleku leen loolu moo fi war a jeex dañoo nommé président Macky sàll pour mu saafara suñ soxla gisuma lu waral ñuy jël ay ay ay ndox. di jël kii di ko joxe si ay gox et tout effectivement boo ne man lu ma def si Covid 19 mooy sama teewaay damay sensibiliser nit ñi. Mm-hmm. wane naa ko jëfee partie des premiers vaccinés de la diaspora et ba may vacciné wu dama ko wane partout pour donner un exemple aujourd'hui je fais les plateaux de télé pour assurer la population que vaccin yi ñuy ngàññ vaccin yi. taxaw na te mun na saafara jàngoro ji fi ñu toll. Mhm. loolu de laa si def. waaw loolu de du yomb moom ndax askan wi ñu bëri moom am na ñoo ñu ngi yàqaat seen xel yow yaa ngi defar mais am na ñoo ñu ngi yàq xel loolu foofu la problème bi nekk aussi Ibrahima. waaw mais c'est parce que jamono moo dë moo moo moo dëppoo noonu c'est-à-dire ñii dañuy defar ñii di yàq mais mhm. lenn am na. Mhm. moom mooy dañu war a def pédagogie moo tax ma ne opposition du taxaw rek di ŋàññ. opposition c'est de la pédagogie. pédagogie bi nag dafa war a tàmbalee si tous les responsables politiques ñi fi ŋàññi yëpp man gisaguma responsables politique bu taxaw sur la sensibilisation woy dem nañ wax ni suñ partie bi dem nañ sensibilisation da ngay taxaw ne këtt ne jon joxe sa loxo càmmoñ wala sa ndeyjoor ne xool naa vacciné naa dara jotuma dama bugg yéen ngeen def ko bu keroogee nag nit ñi dinañ fees ci vaccination parce que bu ko Idrissa Seck ñëwoon ñu gis ko mu def mm-hmm. ah ma sàmba ñu gis ko mu def ma demba ñu gis ko mu def ñeneen ñuy mbootaay yuy ànd si ñoom dinañ ne ah kii de bu amee fit def ko moom mooy vraiment li amul ngaañ. Mhm. daanaka waxtu wi jeex na question bu mujj lay doon nan ngay analyser kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko keroog ne gune yi nga xam ne ñu ngi bindu ñu leen di bloqué ñu jox problème mu carte d'identité nañu déposé carte d'identité euh, suñu toogee diir génnul nañu dem bloqué commission yi ñuy bindoo. waaw c'est un discours mais mais mais mais c'est un farceur parce que man c'est un farceur et un farceur dangereux pour la République parce que mënuma gëm ngay woote xale yi ñu génn ci mbedd yi maa ngi wax xale yi yu koy yuy jéem a discours de violence boo xam ne da ngay topp ne nañ dem bloqué bu ngeen ko lu xew Côte d'Ivoire y a eu 3000 morts aujourd'hui lan moo xew gis nañ Gbagbo gis Alassane Ouattara ñu toog di wax ñu sidee ñoo ñàkk seen bakkan fut un homme politique taxawoo jànkartoog le président de la république wax ko les problèmes évoquer ko au niveau des instances def une pédagogie mais ñëw ne da ngeen war a bloquer ça également c'est pas une c'est une irresponsabilité politique mm. man je ne peux pas souscrire sur quelqu'un qui dikk bu lii amee na ngeen dem bloqué ji bu ñu bloqué ji for force de l'ordre yi kii ñun dañ ne population bi yi moom wéyam jeex na c'est-à-dire mandaam jeex na jeexal na day organiser rek pour ku koy wutu suba. troisième mandat mënu ko am. non ko même bu ko il pourra jamais. troisième candidature je veux dire. troisième. mais ma moom. deux mandats lañ ko jox am na ko day dem bu demul dem imprudence ne da koy def bu keroogee xam nga lu daal ab Wade y a eu un référendum ñun fa lañu Macky de yaay a eu un référendum contre contre Macky et loolu la ñu ragal ëllëg mu am référendum astafurlah contre ab Ablaye Wade mu am un référendum contre Macky Sall. Hmm. parce que boo xoolee Macky Sall a pris le pouvoir en 2012 avec cinq pour cent bu parce que lu ko waral on parce que du. programme moo tax ñu topp ko de. dañoo bëgg changement lañ bëggoon changement lañ bëggoon te loolu si laay daanale ne aujourd'hui effectivement bu naree ne day dem day day day defe naa du ko def defe naa. leeragul ah. am naa yaa oui oui non. mais léegi nag maa ngi. wax maa ngi am na ñoo xam ne yoon may na ko ko. xam nga man. du ma juriste peut sa xam màcc si sama xam-xam màcc si lenn laa lenn mais nañ xam non man lenn wax ne may nañ ko lenn rek laa xam. waaw mooy la parole donné uh-huh. nul ne peut excéder deux moo taxaw wax ko man jànguma sax lu nekk si code bi. Uh-huh. moom moo taxaw ne leen moom yëfam jeex na dem na ba wax na njuuj njaay yu ma njuuj njaay yu ma doon def pour wane da doon njuuj njaay tollootuma si moo ko wax un 31 décembre. Uh-huh. ne leen tollootuma si loolu. aujourd'hui le président de la république jeexal na mais ñun ñu koy bëgg a wuutu te muy organiser nañ moytu wax xale yi toujours ñu leen di génn ci mbedd mi mars treize personnes perte nañ ci seen bakkan ci dara gisoo lu dul ñu dara dara dara dikku ci buñ leen génnewaatee di leen wax dem leen bloqué force de l'ordre yi mu amaat ngaañ c'est une irresponsabilité politique. jërëjëf Ibrahima Thiam ñu sant bu baax di fàttali ne yaay secrétaire bu centre de recherche Saint-Antoine INSERM euh, Sorbonne ñu sant la bu baax jiite tamit li nga xam ne moo di mouvement bi di euh, un autre avenir amoon na mbégte lool bokk ak yow euh, waxtaan wi ñu bàyyi la nga tàggatoo ñi nga xam ne ñu ngi leen seetaan. waaw Souleymane maa ngi lay gërëm ci invitation bi. di gërëm également seen euh, télévision bi di nga xam ne seen télévision bi véritablement moom c'est un c'est une fenêtre de la diaspora man dama fi am sawar di fi ñëw trop parce que c'est une télévision qui est très mhm. dans la diaspora mhm. moo tax tey sama mbokk diaspora yi dëgg la Sénégal naam ñu ngi koy seetaan mais ce sera l'occasion ma waxtaan ak sama mbokk diaspora yi di leen fàttali leen ne leen Sénégal on n'est pas de Sénégalais à part on est des sénégalais à part entière dañu ñun ñëpp dañoo war a dugal suñ loxo ci biir réew mi. Mmh. jërëjëf euh, diaspora bi moo xam naa di nga ñëw débat de la diaspora boobu moom ngeen wax diaspora kese ak politique bi yow ak euh, ki nga xam ne moo di sëñ Aliou Ndiaye euh, sant ko bu baax gërëm ko moom Ibrahima Thiam mu nekkoon suñu euh, gan sant ñi nga xam ne ñoo ñu daan jàppale si liggéey bi Youssou Gueye mu nekkoon si ginnaaw Makhtar Thiandoum ak Mohamed Ba si production bi si rajo bi ñu àndoon si ak Barka si Diop di dajee talaata bi di ñëw si beneen numéro espace public sutura bi rek sutura biti jàmm bi rek jàmm biti yàlla mi borom jàmm yàlla ñu jàmmal musal ñu te mosal ñu jaay ngeen